li ñu soxal tey mooy euh, dañoo gis ni TER bi jàll na. TER bi jàll na amuñu passerelle boo xam ne euh, sunu yaay yi sunu papa yi sunu soxna yi sunu élèves yi di jàng si camp bi dinañ fi mën a jaar. mu nekk situation boo xam ne dafa dafa dafa doy waar parce que booy seet boo doon jógee ginnaaw raay ñëw Waxinaan wala ngay jógee Waxinaan Pikine Est jëm ginnaaw euh, raay du la jëlal même pas 2 minutes. mais léegi di nga ko def 45 minutes wala nga dox 3 ba 4 kilomètres wala nga fay 100 ba 250 francs pour rek nga jéggi pont bi li nga xam ne mënuñu koo comprendre. te euh, à ce qu'il paraît liguey bobu prévoir nañ ko ci sen liguey mais dañoo dem ba ci bir ñu annuler ko té xamuñu lan moo tax vraiment dañuy exiger que ñu défal ñu fofu passerelle dans les plus bref bref délais mais en attendant ñi défal passerelle bi mur bi nga xamné tej nañ ko té sen liguey parégul train dawagul defagul dara nañ ko dindi nit ñi mëna a jaar aussi facilement parce que boy, set gars yi dafa mel ni ñoom seen passage du terme moo leen intéressé seen yon nekkul si suñu nekkin ñun ce qui n'est pas normal dañuy woo autorité yëpp nag Macky Sall ak ministre tutelle bi mais Muntaga Sy moom wane na ay preuve am wane na ni moom mënalul mënul si ñun dara donc loolu bu amé, population bi ñooy quelque xeexal seen bopp dañ koy exiger nag dañuy jaar si voie normaux yi dañuy jaar si voie normal ba réclamer li ñu bëgg suñu ko deful on passe à l'étape supérieure ñu li ñu def nii tey lu ko gën a pire la ñuy def baare waat tali bi buñ la dox nañ leen délai trois jours suñ ko deful dinañ toj mur bi dinañ defaat liñ doon def